بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي المطوى الكريم ومولانا من السائدين اللهم أمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات وذكر الحكيم واجعل كلنا حجة يوم دين اللهم انفعنا بما شرفت فيه من الآيات واشتكرنا بما ضربت فيه من المشرات ñu ngi leen di nuyu yéen ñépp kenn ku nekk ci turam ak santam te di leen ziar bu baax a baax suñu kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoom ñoo euh, toog ci jataay bi ñoom ñépp kenn ku ci nekk euh, ñu ngi lay dalal bu baax a baax ci dëkk bi nga xam ne seen dëkk la muy muy cees euh, sama mbokku njàmbur njàmbur bi nga xam ne moom moo doon ubbi waxtaan wi léegi ah xanaa ñu di ko gërëm ndax yéene bu yaatu bi nga xam ne am na ko ci waxtaane thème bu am solo bi ñu ñu indi mm. am naa ni du ñàkk nit ñi am buntu yeneen yu ñu mën a xóotalee li mu tàmbalee ubbi fii euh, sëñ Ahmed Saloum nag yàlla dafa dogal suñu borom boole balaa ñun suñu ay waajur la moom dañu màggandoo donc xamante nañ bu baax euh, jataay bii bari na fi ñoo xam ne loolu dal suñu digganteeg ñoom def uskas ne Ouskas Ngeere gi Abdou Salam Diop gi nii ak ñeneen ak ñeneen kon lépp loo xamante ni dinañ ko fi yëkkati si kàddu eh, dafay doon loo xam ne lu nu mën a seede lay doon eh, moom lii lu ko mas a ñor la ndax xam nga nit moom bu féetee tout tànk yenn saa yi àdduna mën na ko yóbbu ci yeneen mais moom dafa teel a am chance jublu ci diine dafa am teel teel am chance wu suñu borom boole ko ak kilifa yu mag yoo xam ne teel nañ ko tette bokk na ci euh, Serigne Moxtada Mbacke euh, suñu yàlla ñu ngi ñaan suñu boroom yokk leeram euh, ñu di la ndokkeel di ñaan suñu borom kàttanal la ba lii ngay def saa su ne Euh, nga gën di ko mën a def euh, li ci des it mooy nuyute gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñëw nañu wuy si euh, wuy si ndax li ngay woote wuy si ndax li sabab jataayu tey bi mais bala ma ci dugg dama bëggoon a gërëm daara ji nga xam ne ñoo doon jàng njàng mi suñu borom moom dañ koy sant fu ñu toll ci lu mu def rek. waaw Cissé lañ sant waaye waaye waaye du du du du du ñu jàpp ne rek waaw Cissé lañ sant kon noo leen féete kaw déedéet Cissé moom suñuy mbokk lool léegi nag suñuy kilifa sax ñoo leen jiite nag vraiment ñu sant lool bi ñu ko yore njàng mi ak ni ñu ko defee. ak ni ñu jàngee xarmul xuraan bi vraiment. sant nañ ci bu baax a baax di ko ñaanal gudd fan ak wér. Euh, mbokk yi jàmm sëñ Tuubaa wax na ko mm. nee na gisul lu ko gën fii gisul lu ko lu ko gën fanu jëm mm. kon dafa jaadu waxuma la ñu yem ci di ko ñaan waaye ñuy jëf ngir jëm ci euh, li tax ma doon wax ne tem bi mu doon traité am na solo ndax bu boolee li liy boole ak liy tàqale mu diko jema chambar diko jema gestu xam nga société boudé ben nit rek kenn tuddu société ba fi mam adama kessé nekkee société amagul mais suñu borom mo amone programme bi mo amone projet bi mo amone bëgg-bëgg bi euh, du sax programme parce que Serigne Cheikh day wax ne nit mo am programme nit ay programme yàlla mu lu ko neex la xam te li ko neex mooy am euh, ba mu nammee kon société am fexe na ba dugal ci maam aadama wéetaay ngir am buntu indi suñu maam awa ngir mu wéttali toujours ci stratégiem mu tegi pexe ba mu mel ne danoo def luñ leen di tere ngir bu mën leen fee wàcce ba fi ñaar nekkee àdduna di dox ba mu weesu loola ca la ay wuute commencé di am ndax benn benn la bu ñaar commencé am rek xàjjaloo tàmbali bu bëree nag ay division commencé am parce que ñu ne kii mag la kii ndaw la dinañu ne kii góor la kii jigéen la dinañu ne kii dafa njool ki dafa gàtt dinañu ne kii nii de lay euh, waxe kii Euh, daa bëgg nelaw kii dafa bëgg xéwlu kii daa bëgg nàngam maanaam division yi tàmbali na euh, c'est vrai wax nga wax nga ni tey jii man nañu suñu waaso yi nekk fii ñu yemale leen ci ñaar daanaka ñaari groupe mais boo ko boo delloo ba ca fa mu fa mu mujje ñu ñëpp ay doomu aadama lañu kon ci moom la ñu soxi ko maanaam division yooyu di ñëw mooy dem di complexifié wu plus ñuy dem plus muy complexe plus muy gën a jafe plus muy gën a compliqué lii nit ñi di gis seen bopp ak ñi ñu nuróol di sori ñeneen ña ñu bokkalul mais plus ñu doon dem nag liy gën a indi division yi difficulté yi diggante ak nature la ndax nit dina nekk ci barab ndox amu fa dañu soxla ndox pour dund nit dina nekk ci barab mënuñu fa napp wala suuf sa melul na mu war a mel ba ñu mën caa bay lu ñu dundee kon ñuy wuti fa mu baaxee guerre yi commencé ñëw loola di wéy ba ñun ñu hérité ci yenn yoo xam ne ñun tey fi mu toll rek lañ ci xam mooy am nañu ay waaso am nañu ay diine am nañu ay parti politique am nañu yoo xamante ni finalement lu ci bëri day xaajale kon tey ci contexte bu mel noonu lan moo ñu war su fekkee ne bëgg nañ jàmm am mooy ñu seet ci biir loolu ñu wutale lan moo ciy facteur de richesse maanaam loo xam ne day jariñ ak lan moo mën a indi luy yàq ñu xool nuñ ko mën a wane ginnaaw ba du tasaare sunu ay société euh, ci biir lool nag leadership daf ci am solo maanaam njiit euh, tey jii ñépp xam nañ ni suñu kilifa gu tedd gii ñu dëddu ci fan yi ñu génn di Serigne Cheikh Sidi Makhtar moom dafa waxoon ne combat dafay wax ne sax xeex lay wax xeex Madame Wouté Biti ci diine ji mu ne danaa xeex la wax mune ne damaa xeex maa ko dégg mu que ba mu deñ xanaa mune diko sakku rek ba am xam facteur de fission yoyu mu def des éléments favorables à la fusion Madame pour jur non, bobu non, benno bobu ci walu diiné alors Lola nak yaakaar naa ni gëstu bi interpellation la ci képp koo xam da ngaa nekk ci position wu njiit ci côté bu mu manti doon nga natt sa responsabilité xam kàddu yi ngay yëkkati euh, jéego yi ngay seq jëf yi ngay jëf lenn lu ci nekk lan la mën a jur ci luy tasaare ci luy xaajale ci luy diviser doomu aadama yi ci loo xamante ni day soril jàmm kenn ku ci nekk da nga war a jël sa responsabilité ki xamul na xamul mais ki nekk leader ki nekk responsable moo xam ci wàllu diine moo xam ci wàllu politique moo xam ci wàllu état moo xam ci yeneen wàll kenn ku ci nekk da ngaa am responsabilité te responsabilité boobu responsabilité sàmm la comme responsabilité sàmm la nga bàyyi xel ne bis day ñëw kon yàlla suñu borom dana la interpeller ci responsabilité boobu naka nga ko téyewoon hmm. loola ah wóor na ma ni ñeneen ñi nga xam ne ay borom xam-xam lañ te nekk fi te war a traité yenn tem yi ñoom du ñàkk ci biir journée bi danañ dugg ca loolo ah ñun dafa am yu ñu tënk rek mooy responsabilité aussi ngir bu fekkee dañ ne dañ laa dénk cër bi ñu dénk fii ci ab dëkk lu bëri yaa ko da nga war a teew te tey ah ku day ne Serigne Cheikh Abdoul Aziz Ndiéguène su fekkee ne moo génn. àdduna won ñu ginnaaw démb ñu koy ñaanal tey day farata nag ñu teew fa euh, su woon loolu man wóor na ma ne thème bi ñor na ma ñor boo xam ne danaa ko ànd ak yéen maintenant euh, ci bi ma bëgg a terminer mooy waxante dëgg dëgg euh, dëgg maanaam ñàkk wax dëgg lu bari luy luy maanaam luy yàqu ca lay yàqu sëñ Cheikh Fall Mbawar da doon wax ne nee na maslaa fu mu yàgg nee na dëgg jóg fa ndax fen lañ fay suturaal léeg-léeg diw dina toog ndax am nay koppar bëri nañu toog ca jataay ba mu leen di fajal seeni soxla bu nekkee ci lu dëgg kenn du ko wax bu dee def lu mu warul def kenn du ko wax buy wax lu dul noonu duñ ko ko wax ba bu ñu génn nag naan pourtant waa ji lim doon wax daal nangam ak i nangam loolu nag bokk na ci li nga xam ne luy bokk mën a sànq suñu société Serigne Touba da wax ci bu ci ragal a néna tabu ragal ko tapalé bu ni nit ñi a ñi ngi ci ñi ngi ci erreur bu maintenant li ci des euh, kenn ku nekk ci ñun dafa le maximum à son niveau pour éviter parce que a intérêt à un niveau à un autre muy poser acte acteurs xamné day société nous sommes 95 de musulmans mais ce n'est pas parce que nous sommes 95 de musulmans que nous allons imposer aux 5 des chrétiens ici dans ce pays que nous sommes beaucoup ci dëkk bi parce que ñun nous sommes en France minorité lañ fay est-ce que nous nangu imposés ñu ñuy imposer seen diine duñ ko à part de ce moment là léegi dañuy xam ne affaire u diine affaire u ngëm la du affaire la majorité ak minorité ndax ñi fi nous bu njëkk ñoom ont wéetoon dañoo néewoon mais c'est néew gogou

loolu dañ ko jàngal bu fekkee ne pouvoir maanaam pouvoir non dañuy waxante dëgg pouvoir dafa jarul lu ne tey sunu kilifa diine lu ñuy jàngale mooy fexe nu nu xam ne islaam benn la bennoo bi benn la euh, sëñ Touba ci boppam dafa créewul tarixa muridulaahi la woote ñi nam ma jëm ci yàlla kon nit da daan ñëw ci moom di lu mu laaj ndax tàggu nga say wayjur te première question boo waaw mu ne la ndax am na wirdu waroon jëfandikoo boo waaw bu fekkee ne du woowa bokk na ci loo xamante ne dina la jaar ci ci jëwriñam ba di ko tedd ki yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne téye ko ko mais loolu mooy exemple loolu mooy exemple li sëñ Cheikh di Makhtar doon jàngale mooy exemple te wóor na ma ni kilifa yu baax ci réew mi loolu la ñuy jàngale li tax ñu doon jóg doon jàppale Senghor du faral Senghor dañ doon stabiliser société bi wax nga ko alors yooyu nag ñun ñëpp waruñoo mën a bëgg alal waruñoo mën a bëgg pouvoir waruñoo war a bëgg leneen ba poser des actes qui peuvent contribuer à créer des débats yu mën a indi ay jaxasoo ci biir Sénégal